mais Liss may ma weer yi waay. waaw weer yi du dara du laaj tey nga war a tey nga war a ki nga xam ne ni mooy Tapha Mbeur. Euh, nekk nekk naan loo xam ne yéen ñaar dinaan ñaari xel ndef leen bu bii togg añ bi togg réer. tey nan nga préparé ki nga xam ne mooy Tapha Mbeur. waaw waaye la ñu baax ànd suñu mbokk. te di ko préparé comme ni doon préparé suñu yeneen combat yi. di ñaan yàlla suuraal ñu may ñu ndam quoi. mais lu nga bëgg a xamal mooy. mi ngi doog am combat ba mu ba léegi. Ah, moom dalee bëre a tey mu ngi doog am combat. tey tey la doog am maanaam ñu ko jox favori. Ah. ñooñu laa bëgg a corriger quoi. mais Liss lan sa secret. sama secret lu dul dara lu dul xale bu ndaw. waaw amul leneen. jërëjëf. Ba. si loolu. maa leb tawfeex. loo ñëwee ñëw rek waaj def lu ñu war a def. ñaan yàlla defal ñu si ndam ko waa bar sëñ Fallou. lan ci combat waaw ñu ngi def lu ñu war a def yëpp xëy na dama jàpp ne loolu moo gën a. am importance ci combat bi parce que li ñu war a wane yaakaar naa ci géew bi suturaal ñu yàlla ànd ak ñun yàlla may ñu ndam incha allah. lan moo tax nga yokk match bi. non match bi la amul. loolu ah, mais xëy na liggéey bi la ñoom coach Pam Mbaye parce que combat bi dañu ci liggéeyloo liggéey bu metti xëy na tey loolu moo yokk match bi di rek loolu ñu ma liggéeyloo yàlla def mu loolu yëpp nekk ay ndam ay tawféex. booy bi nee na day xeex ak yow duma la. waaw xaar wax naa ko li ma ko waxoon démb laa ko yow bu dee pare na pour xeex ak man maa ngi koy xaar bu dee pare na pour bëre ak man maa ngi koy xaar incha allah. ayca yaa ngi caa ngeen. waaw li ma wax dugub dara mu jël temps yaa ngi dégg dégg dégg a dégluñu waaw nañ ko wane ñun ay xale yu soxla lañ. combat bi si bëre lay jeexee wala si xeex. maanaam bëre dóor lañ bu taxawee xeexal boppam dëggal boppam xeex mun na jeexee si xeex silu lu gaaw. Ah. waaw na taxaw dëggal boppam loolu laa koy ñaan quoi. de joxoto la joxoto Aïcha Mansour quatrième combat baa ngoog de la soirée combat bi xam ne Dieye production moo ko daal taxawal diggante confiance xam te cosaan ak nga xam ne mooy Tubless Kër Massar. confiance Tubless confiance moo ñu woon ginnaaw Tubless woon ñu kanam confiance Tubless ñu ngi lewtoo lewtoo ba di bëri dànk confiance Tubless. confiance doublesse Lamine laay nuyu borom seet borom le TV li mu lakk mënagul jàll Lamine li mu lakk mënagul jàll fu ne nii Aïcha doublesse ak confiance confiance doublesse Doubless Confiance ñu ngay demee wet fu ne nii Confiance ngemb bu bleu Doubless ngemb bu weex daal ñuy wan ginnaaw fu ne nii Confiance dañu jàkkaarlool Confiance Doubless quatrième combat la soirée fii ci arène nationale bu Pikine fii ci technopole bi Confiance door na léegi door na mu fayu dooraat waaye dalul Confiance Doubless Confiance ak Doubless Mansour gauche droite kaawoo na wala fekk na ko doo dox daan laa ilaha illallah dafa kaawoo dafa kaawoo dafa kaawoo confiance du des confiance mu kaawoo mu fekk fa puus ko mu daanu laa mën a jeex confiance du des confiance du des moom déglu ma lamit lamit dafa yomb Liss Ndiago mënul am six ba bëre grand combat na ñu bëri ñun say morom lañu Tivaouane Peulh laa dëkk Tivaouane Peulh laa TV ñu bàyyi waa Tivaouane Peulh xel bu baax. dóor mu daanu. père nee wu ñëw. Eh, damay damay xaw barki àll. wuy ma Balla Gaye Balla Gaye Modou Lo. Ama Baldé fa àtte sama bët. Eh. ñuy toxuñ maa jóg. xale la sama yaay dafa sonn. sama papa dafa ñaan bu baax. may doomu Bawol. di sant waa Bawol bu baax. lii ñaa ko talaa bëri baax na bii mooy sama troisième combat. sant sama papa El Hadj bu bu baax internet yi gaucher waa lii la nii waa eh eh eh waa waa xanaa li gaaw na ni li def mooy prime dip prime mu jël tànk yi ba ko dëkk suuf. changement mu ngay sumi daal ya plastique la soloon sumi ko war a mën carax lépp ci ay tegtal la làmb moo làmboo loolu bisum tey jii nii. histoire bi dina bind Tapha Mbeur Liss Ndiago kan mooy dem ñoom ñaar kan mooy téye moromam waaye mu nekk baa bu dangereux na barki dem Ndiaye bëri ki nga xam te ne mooy Ada Fass am ci yaakaar bu rëy waaye gis nga na dina mujjee demee te nag mu ngi bëri xale jàmm gën ba Liss Ndiago dafa bañ a ardo na léegi daal taxawaat mais daa wàcc bu mën a toll toll ak adversaire am Jacob Baldé xeex ba boo Diobass Jacob Baldé boo Diobass Jacob Baldé ñoom ñaar ku nekk day mépp moo tax bu ñu jugee dañuy dese ñoom ñaar ci kaw boo Diobass Jacob Baldé boo Diobass Jacob Baldé boo Jacob Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé drapeau Fadel Dakar Buzz Buzz social Boy Diobass Boy Diobass Jacob Baldé Boy Diobass Jacob Baldé deuxième round bi mooy dafa xaw a low la woon def na nii Boy Diobass Jacob Baldé combat social bala jéem drapeau Fodel social. Mbodj Baas Mbodj Baas da ko balde Liza ngi noonu di wàcc suuf Liza ambiance fee Boy Jobaas da ko bal de bu ci nekk morom Boy Jobaas da ko bal de olo fa xóot <laughs> ah Boy Jobaas da ko bal de Xaadim Anta bàyyi na ko waaye demul Boy Jobaas da ko bal de xar wala di luy am wala buddi lu mu nar am na loxo ci ngeeño ngaño mënu ma koo am na loxo ci ngemb mu ngay wéyalee mu ngay wéyalee booy jobaas Jacob Baldé ñu ne am nga loxo ci gaño booy jobaas Jacob Baldé lu mu nar jobaas Jacob bañ na ba léegi booy jobaas Jacob Baldé booy jobaas Jacob Baldé ñu Boy Jobaas da ko balde wéyal na ko ba léegi bëtt ko la ko nar te daan na ko da ko balde daan na Boy Jobaas da ko balde jël na drapeau Fadel Dakar Buzz da ko balde am na ndam ci kaw Boy darde Arène Nationale jëlal tànk ya bul ay xelala loxo bi yooyu mooy jaaf jaaf bi bu baax bi la xam nga kéem kéem bu baaxul yow fu mu ne nii du ko mënee nga. polox nag xam nga polox. polox la mun xamuma ko. xamoo ko déedéet ñun bokkatuñu cour bi ñuy dawee ñun ñëpp. ah bokkatuñu cour bi ñuy ñaar. tuur waaye tey Tapha Mbeur suukar lay tuur suukar. làmb ji bii nag lañ bëgg a xam ndax saafara la def wala aha ah, def termus mu ne termus termus ban termus de café laa ko xamee woon boo bëgg a tàngal café lu ko xëpp de ndox waaye termus bi ndox ci nekk xar fa xuufa yi ey sotti nañ ko termus ba cey lii termus ay ba mën ko tàngal

arbit nee leen ngeen génn heure bi jot na nee leen génn leen dafa mbër lañuy xaar fu ne nii xam naa ne fa mu jël avertissement ndax taxaw bañ joxoon da romb moom dafa mbër doomu parcelle ba arbit baa ngi xool ndax nin na wala ninul Mansour arbit baa ngi leen bi ba nga ko seet Mansour moom dafa mbër avertissement Liss Ndiago dafa na dimanche 13 février. Liss Ndiago bàyyi ko ñëw dafa mbar rek énergie drapeau Papa Ndiaye ñëw bet dafa mbar mu ngay daxali lee nii dafa mbar lay génn dafa mbar ay Bamba